برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان waaye nag roy yonent roy yonentu ci julli yenam daan jullee yombut roy yonentu bi ci nam daan wooree roy yonentu bi ci daan jëflanteeg waa këram moo gënoon a baax moo gënoon tedd roy yonentu bi ci oyofam roy yonentu bi ci suufeel boppam roy yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yàlla roy yonentu bi ci xam yàlla roy ko taxul nga àgg fi mu àgg loolu rek dafa të dafa jafe rawatina nag nga doon yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sahaaba yooyu muy Babacar Siddiq radiyallahu anhu omar ibn xataab radiallahu anhu usmaan ibn affan radiallahu anhu ay nga ali ibn abi taalib radiallahu anhu xadijatu radiallahu anha aïchatu radiallahu anha fatimatu radi alayhi assalaam ak mbooleem sahaaba yonent bi bàyyi mu ne jot naa leen ci bëgg yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam jot naa leen ci xam yonent sallallahu alayhi wasallam nañ ko xamee woon jot naa leen ci jege yonent bi nañ ko jege woon jot naa leen ci jeex ci yonent bi nañ ko jeexoon de borom xam-xam yépp lañ amoon ci ay xam-xam dox naa di jàng ba àgg fañ àgg de udriku man mada moo ñu baax ñooñee ci nubuwatu ak wilaayatu de xilaafatu de a fuutu man baqaa nag gannaaw nag bi nga xamee ne jox ne teggin ne dox na ba jot sahaaba yi dox na ba jot ñëwayoon mu ne nag gannaaw loolu nag ñi des mooy ñooñ jamonoom ak ñey ñëw gannaawam nag a fuutu ñoom moom dama leen a romb képp ku ma jamono ante rek man romb naa la man bàyyi képp ku xala ñëw sama gannaaw romb naa la doo jot sama lef pëppincam yàlla sahaaba yi nag moom jot naa leen la wax yonent yi jot naa leen la wax wali yi jot naa leen la wax parce que loolu tegginu chariatu la mu ne nag wa in tasaabaka rijaalu góor yàlla yi buñ dajee yonent yi du ay góor yàlla naam ay góor yàlla lañ wali yi du ay góor yàlla naam ay wali góor yàlla lañ xalifa yàlla yi du ay góor yàlla naam ay góor yàlla lañ foofu nag moom bàyyi gisatu dara yàlla wax ci na nag adamiyatu nekkatu fa mu ne wa inta saabaqa rijaalu asbaqa yonent yi buñ dajee man bàyyi maay raw wëllu yàlla yi buñ dajee man bàyyi mooy raw su baa nag fan lay rawee ca zaatul aliyatu lay rawee ndax moom mooy jëmmi zaatu yàlla ji de sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu fan lay rawee mooy ci jaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxoon ne wadala abdu faanin laysa fii baqiya man damaa jeex takk takk takk takk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara ci sama ibrahima yootu man bàyyi loolu dafa jafe دعنا فما هو إلا المصطفى للمناقلي ني تخل ني بند بند لين واخ لين من ماي مصطفى من باي بند لين واخ لين وي لين يوخ لين دقل لين من ماي أحمد من باي من ماي محمد وما هو إلا ما وراء الأقاويل لا تجناه محمد لا تجناه واخ لكن من توخ من لا من ماي جمي على جي وكم يمونا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه باي أمود كم باي أمود كنورون موم باي أمود كو أغفيم أغ كون نك لول نانكو نانغو bàyyi dafa garaaw bàyyi dafa raglu bàyyi dafa jege yàlla waaye bàyyi dafa nekk di yàlla nañu xam loolu du ku ñuy doon dolo lépp déedéet dangay jël ci moom rek du ku ñuy topp topp boo xam ne dañ nga koy jot kenn séenu ko kenn séenu pëndam kenn melut ni bàyyi ci xam-xam amul ci àddina bi kenn melut ni bàyyi ci jikko ju rafet kenn melut ni bàyyi ci sañse kenn melut ni bàyyi ci kaala bu rafet kenn melut ni bàyyi ci bët yu rafet kenn melut ni bàyyi ci dox ay mbokk kenn melut ni bàyyi kenn melut ni bàyyi kenn melut ni bàyyi jàmbu xeebu bii naan ko yow la yow la bàyyi la bàyyi la bàyyi du man bàyyi la nañ nangu loolu sëti bàyyi nañ nangu ne mbir mi bàyyi la doomi bàyyi nañ nangu mbir mi bàyyi la سيدي باي نانغ نانغ نبيرمي باي لا مقدمي نانغ نانغ نبيرمي باي لا ناري نانغ نانغ نبيرمي باي لا دو كين كرماي باي رضي الله تعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا سر الله قبل اقوال هادي الى صراطك المستقيم على عالي قدر المقدار العظيم سنت باي ناس الحمد لله وشكر لله sant Baay Ñas alhamdulillah wa shukrulillah sant Baay Ñas alhamdulillah wa shukrulillah برهام باء وراء ألف ثم هاء